talaata fukki fan ci weeru décembre 2019 dal leen jàmm ci actu du jour ci Dakar Buzz TV li ci gën a fës moom mooy Guy Marius Sagna mi nga xamante ne nii gannaaw marsam bu rëy bale mu defoon jëm ba biir pale yëngal na li nga xamante ne nii moom mooy police bu ñu jógee ci loolu dañuy dem ci li nga xamante ne nii moom mooy Moustapha mi wéy di dëggal boppam ci kàddu yi nga xam ne jëloon na ko jëmale ko ci yenn njiit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi bu ñu jógee ci loolu dañuy dem ci wàllum ndox mi SDE mi nga xamante ne nii moom moo yor lépp lu jëm ci wàllum ndox mi dakkal na grève bi nga xamante ne nii moom lañ doon def gannaaw bi njiitum réew mi jógee dafay génne ab décret ngir wàññi leen ci yoon boobu ñu jëloon buñ ci jógee dañuy des wàllum yorinu doxinum dëkk mi ministère bi nga xamante ne nii Amadou Ba moo ko yore muy ministère des affaires étrangères am na xew-xew bu fa am bu doy waar jëm ci wàllum xaalis xewee fële ca Paris ci wàllum yoon Thione Seck mi nga xamante ne nii nee na dafa sonn lool ci dem beeg dikk bi jëmale ci yoon bi dafay ñaan rek ñu àtte ko ci nu mu gën a gaawee gannaaw bu ñu jógee ci Thione Seck dañuy des ci wàllum yoon ba léegi Mbuba wooloo doonul ki nga xamante ne ni moom mooy Marème Tandian doon nañ ko déglu fële ci juge tribunal des flagrants yi moom nag da doon nuru lu jabaru Serigne basiiru Gueye di procureur de la République xew-xewu jamono dañuy wax ci li nga xamante ne nii mooy xibaar bu doy waar ki nga xamante ne nii dafa baal jëkkëram gannaaw ba mu biiralee doomam bu buñ ci jógee ñu dem ci tàggat yaram Sadio Mané mi nga xamante ne nii jar na lool guddi yi ñu toll ndax Real Madrid ak Paris Saint-Germain ñu ngi di ko xëccoo. ñi des ci tàggat yaram moom la ñuy jeexalee xibaar yi nag. sixième et dernière journée match pour Ligue des champions ya nga xamante ne mu nga awee fële ca Europe tey lañ koy door war koo jeexal suba dinañ ko yaatal ci lu mu gën a fës ci xibaar yi lii moo nekkoon tënk yi des tuut ñu yaatal ko. asalaamaaleykum dal leen jàmm ci xibaaru suba gi fii ci Dakar Buzz TV kii Mari Sagna comme niñ leen ko waxe woon ci titre yi moom nag moom mooy yëngal li nga xamante ne ni moom mooy police ki nga xamante ne nii moom mooy Mamadou Ndour commissaire central bu Dakar moom nag tekki nañ ndombal tànkam gannaaw fukki fan ak benn après manifestation bi nga xamante ne nii indi woon na fi coow lu bari li nga xamante ne nii nag moom moo tax tey ñu tekki ndombal tànk ki nga xamante ne moom mooy commissaire Ndour mu dem nag mujj fi nga xamante ne nii moom mooy cabinet directeur général de la police au ministère de l'intérieur remplacé nañ ko ak ki nga xamante ne moom mooy El Hadji Cheikh Dramé kooku nag ba fii ñuy wax yéen moo nekkoon commissariat de l'aéroport de Diass kannaaw loolu dañuy dem ci ki nga xamante ne ni moom mooy Moustapha Cissé Lo Cissé Lo El Pistolero di wëy di dëggal ay kàddoom yi nga xam ne jëloon na ko jëmale ko ci li nga xamante ni moom mooy yenn njiit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi muy wax ne nag bii baa ci wàllum drogue gi nga xamante ne ni mooy jaabaa jonge saa su ne biir Sénégal ñu gën koy dégg chaque jour ca biir port nee na nag am na ay immeuble ay oto wala alal ju baree bari xaalisu dorog bi la te ñi nga xamante ne ñi ñoom ñoo fiy dugal dorog seeni complice wala ñi leen ciy jàppale ñu ngi fii ci biir réew nee na nag moom mu ngi dëggal ay waxam te nag bés bu ko procureur woowee jëmale ci loolu dina indi ay leeral bu ñu jógee ci loolu nag dañuy soobu ci li nga xamante ni moom mooy ndox mi ndox mi nag mënuñu cee nekk te duñu wax SDE SDE mi nga xam ne dakkal na gréewam bi nga xamante ne ni commencé woon na ko depuis ayu bés bële gannaaw bi njiitum réew mi génnee ab décret ngir wax ak ñoom ñu yemale seen ñaxtu yooyu ñu doon booyal population bi nag di ci kontaan lool gannaaw bi ñu jisaatee ndox mi waaye ñoom SDE nee nañ dinañ jël yeneen xeetum xeex yoo xamante ne nii yoon may na leen ko pour jàmmaarloo ak nguur gi. gannaaw loolu nag ñu dem fi nga xamante ne nii moom mooy ministère des affaires étrangères muy ministre bi nga xamante ne nii kii di Amadou Ba moom moo ko jiite. délégation bi nga xamante ni ñoom ñoo jóge ca pèlerinage éclat Boucher ni ko tubaab di woowee ñoom nag am nañ ay dàkkantal ñaari fonctionnaire boo xam ne kenn ki ñu ngi koy woowee AB keneen ki ñu koy woowee MC kenn ki di góor kenn ki di jigéen ñoom nag ñu def jéeye joo xamante ne nii fële ca aéroport international Roissy Charles de Gaulle de Paris ñoom nag dañ leen a jàpp ak xaalis bu takkoo takku lu tolloog 1000 euros ñu koy xayma ci 65 millions ci suñu xaalisum réew ñoom nag ñu ngi ko nëbboon ci seen biir bagage gannaaw loolu nag douanier bu France teg na loxo ci xaalis boobee ñoom libéré nañ leen waaye li ci doy waar moom mooy xaalis boobee boob ba léegi suñuy nguur ak suñuy njiit yañ fa yebaloon kenn ci ñoom jógul taxaw ngir laaj xaalis boobee dañuy des ba léegi ci wàllum coowal xaalis bii baa nag ci faux billet Thione Seck mi nga xamante ne nii tegoon nañ ko ay tuuma ci wàllum faux billet nee na dafa sonn lool ci jaabante këram ak yoon nee na nag bu sañoon ñu atte ko ci nu mu gën a gaawee ndaxte pression bi tegu ci kawam dafa bari lool démb nag xibaar yi nga xamante ne ni E-Media moo ñu koy xamale démb ki nga xamante ni moom mooy avocat am Boubacar Cissé demandé ne renvoyé audience bi ba beneen yoon xew-xewu jamono la ñuy wax usurpation d'identité noonee la ko tubaab di woowee maanaam nuru nuru loo doonul wala mbubboo koo doonul ki nga xamante ne nag moom mooy Marème Tandian démb woolu woon nañ ko fële ca tribunal des flagranderie moom nag li mu doon nuru nurulu moom mooy nekk jabaru Serigne Bassirou Gueye procureur de la République wala mu nekk jabaru Mbàkke Mbàkke li mu doon def nag moom mooy affiché ci photo profilam sol mbubbu avocat di triande ñi nga xamante ne ñoom ñooy def e-commerce maanaam jënd ak njaay ci wàllum internet jot naa nag triande ki nga xamante ne ni moom mooy Wuri Diagne ak Oumy Ndiaye bi nga gannaaw bi ñu découvrir ne moom la mu doon woote yëpp du ci dara dañuy des ci wàllum xew-xewu jamono ba tey li nga xam ne moom mooy xibaar wu doy waar te jaaxalaate lool moom mooy ku jigéen kii nga xamante ne nii na baal na jëkkëram ci bépp ñaawteef bu mu def doomam jëkkëram nag li mu defoon moom mooy ëmbal seen doom bu jigéen bii moom nag nee na jëkkëram deful dara ndax seen doom bu jigéen bi moom moo doon provoqué jëkkëram te jëkkëram góor la rek mënul daw yenn yi nee na nag mu ngi continuer di wéy di ko gën a bëgg ba léegi ndax ñoom ñaar ñu ngi sëy saa su ne te mu jëkkëram mu ngi koy bëggal na baal na ko te mu ngi xaar mu jox ko ay gannaaw loolu laataa ñuy yëkkati xibaar yi dañ koy tëjee li nga xamante ni moom mooy wàllu tàggat yaram suñu star national bi di Sadio Mané moom nag Paris Saint-Germain da ko tàllal loxo bëgg ko lool pour mu remplacer ki nga xamante ne nii moom mooy Sadio Mané suñu sukkandikoo ci France Football mi xëy tey jii ci talaata ji wane ne gannaaw ki nga xamante ne ni moom mooy Zidane sàkkuteef gi mu defoon ci président bi Fiorentina Perez pour mu jënd Sadio Mané waa waa Paris Saint-Germain nag desuñu ci ginnaaw ndax fan yi yëpp ñoom ñu ngi wër ku remplacer ki nga xamante ne ni moom mooy Neymar Junior Neymar Junior moomu nag ñoom jàpp nañ ne Sadio Mané rek moo mën a nekk remplaçant gis ne nag bu metti am na ci diggante déjà Paris Saint-Germain ak Real de Madrid xam ne moom mooy Sadio Mané national dañuy des ci wàllu tàggat yaram Ligue des champions fële ci tugal tey nag ñuy door li nga xamante ne ni moom mooy bés bu mujj ci poule yi match de poule yi tey nag match yi ci gën a fës moom mooy Liverpool bu Sadio Mané mi leen doon wax sànq moom mi bokk ak ki nga xamante ni moom mooy Kalidou Koulibaly ma nekk ca Napoli poule Salzbourg moom mooy dalal Liverpool Napoli war a jëm fële nga xam ne moom mooy Genk ñoom ñaar nag ku ci am ndam wala ku ci niil mën nañ njortu ne di nga jénn ci poule gannaaw loolu match bi gën a fës tey tamit ci journée Ligue des Champions yi muy de Milan ne ñoom ñooy italiens yi ñoom ñooy dalal FC Barcelone bu Lionel Messi mu mujj jël lii moo gënoon fës ci xibaar yi ñu koy yëkkati jotaay bi di leen jox dig dajee suba ci Dakar Buzz.